noo leen di nuyu di leen siyaara may yeesal sama taalibe ak sama tiofel ak sama mbëggeel ci maulana abdullahi wa khadim rasulih serigne tuba khadim rasul cheikh ahmadou bamba di ñaan yalla sunu borom ci katanam aku mayam mu dolñu ak bëgg ko ak wuluko ak sa ko ko su nekk ñu siyaré ñëpp nak di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiix te di ko sàkku ci yeen ñu ngi leen si waat tay tay la dimas fukki fan ak ñent ci wéru juillet moy silet 2024 atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñent ci calendrier jant bi ci ni ñi wàññi ci gan ak jamono yonte yàlla isa alayhi salam waye li ëpp solo moy calendrier jant bi tey la dimanche euh, juróom-ñaari fan ci weeru tamxarit 1446 ci Naby Vision atum gàddaay gi muy calendrier weer wi ji ñaar ko fan juróom ci horoscope cancer nga xamne jamono ji fi la jant bi ne suba nak di altane ku bëgg nat penku bi ci senegal ak ci aduna bi man nga ko nat ci bépp réew bo xamne ne yaa ngi ci ligne 23,5 virgule 5 23 degré virgule 5 te daanaka mooy réewi africain yëpp rek ak réew yu nekk biir Afrique yëpp ba ci réewi tubaab bi kon suba ci altine ji di juróom-ñetti fan ci weeru tamxarit 1446 di la 15 sulet 2024 ci la jant bi di jóge ci madaaru sarataan mutajihatan ila madaaril judri muruuran bi xaccal istiwa 90 ci yëkkati ko maanaam suba ci altine ji la jant bi di bàyyi ko ci burju sarataan jëm burjul jat yi bi Vision kon loolu mooy walal ñu mën a natt penku su yëkkatikoo ko woon quatre degré dafay tiim kaaba gi direct dafay def ak moom maanaam correspondant da tiim direct nga xam ne kaaba gi dootul am keppaar dootul am takk ndeer loolu ñepp mën nañ cee natt penk ki yor sa kër ki yor place am ki yor jakk ki bëgg defar juma yépp ku bëgg xam penku tamit fan la fété man nga ko nat ba xam ko nga ni ëlëk do dootoo am jafé jafe boobu loolu kañ lay am fi suba 9 h 27 ci Sénégal ci heure Sénégal 9 h 27 waaw moy tolo fële ci Makka midi 27 ni tuddé tuddee silul kaaba nga xane kaaba gi dootul am takandeer loolu suba lay am lolé ñaari at ñaari yoon lay am ci at mi bu jant bi jugé ci madarul jadi jëm madarul saratan, moy horoscope capricorne jëm horoscope cancer bay jéggi jub maam jub ci khatul istiwa moy li équateur bi bala fa àgg day tim kaba gi dina bu yetu ko 90 degré day tim kaba gi net kaba gi moy dug suuf kon ku bëgg nat penku léegi su ko rombee nag loolu amoon na ci altane ba ñu génnoon ci le 27 mai amoon na ca 9 heures 18 fii ci Sénégal midi 18 ca Màkk waxoon nañ ci. Naby Vision. léegi dafa demoon nag dem du jëm Madaaru Sarataan àgg na fa nag ba mi ngi tourné suy tourné waat tamit jëmaan maanaam jugee côté càmmooñ jëm côté ndeyjoor ba war a jub. ligne équateur bi dafay tiim kaaba gi encore baneen yoon kon ñaareel la ko def ci at mi defoon na ko 27 juin da ko defaat suba le 15 juillet kon suba 9h27 ku bëgg natt kaaba gi penku balaa 9h27 da ngay waaj bu 9h27 jotee boo jàkkaarloog jant bi direct ëppoo benn côté sa sa takk ndeer day jëm soowu direct du génn ci genn wet saa bu génnee ci genn wet loolu loola lu mën a doon rek muy tabax muy miir muy garab muy lu mën a doon jublu penku bu amee lenn lu génn ci takk bi war a jëm sow bu amee lenn lu génn ci côté ndeyjoor baa côté càmmooñ loolu jublu penku kon suba balaa 9h27 ngay natt loolu 9h27 ten ci la jant bi di tiim kaaba gi net keppaar yëpp bu dee fii senegal fay jëm sowu direct nga xamne du génn ci côté sud côté du nord dedet manam côté càmmoñ côté salum du fi génn du génn côté càmmoñ même bâtiment bu taxaw sax bu amé kër lu ci génn fenn ci digg-digg bobu bâtiment ba amna lo moy moy na moy na penku jàkkaawut ak gi waye bo xamé tak ndeer bi dafa jublu sowu direct dara génn wala même bu fekkee day am génn ndeyjoor càmmoñ tamit dafa jub ko ci ci ko da nga def bâtiment Naby Vision manam bu fekke amna lu upp nga xamni djublu sow wala nga def juma minbar bi wala jakka ji keppar gi jëm sow bu dëngee jëm ben côté suba ci 9h27 djublu penku kon suba ku bëgg a natt penku bi 9h27 na fek nga taw bu ron nak ci rewi naar ya fu melni ni arabi wala imarat ñom fofu day fek jant bi nak ci digg asman do gis takandere bo gisé takandere dara rek ku nekk ku fekk Arabie Saoudite midi ku mu fekk Émirats arabes une heure jot nga gis sa takk ndeer yow jubloo penku maam jàkkaaroo kaaba gi yow wala ab tabax wala garab loolu jublu penku bu fekkee dara fekk Arabie Saoudite wala Émirats arabes voilà ku mu fekk Sénégal nag. sek sa tak ndeer wala tak ndeeru lola nek senegal ci souf ci sow rek lay jëm day ko ci nak kon ku bëgg na penk suba bala na fer 27 taxawal xol sa tak ndeer nek da ngay jàkkaarloog jant bi nak jàkkaarloog jant bi rek bu na fer 27 jot sa takkandeer bu jubee sow kocc ju kocc nga xamne demul ci genn wet xamane yaangi yaa nga xeer boy taxawal jakka wala jumaa wala sa kër nga bëgg mu jublu penk wala sa palaas nga nat nabi vision loolu suba lay am suba nga xamné moy tombé la 25 ci horoscope saratan moy burju saratan, jant difa bayiko bàyyikoo muy kotak chamoñ fi ci Senegal, jëm kotak ndeyjoor war jéggi war a war a war a war kaaba gi waxtu woowu lay doon neuf heures vingt sept kon ñaar yoon lay am ci at mi bu ngeen fàttali ko al la vingt bi weesu amoon na mi ngi war a suba lay amaat altane lundi waat la quinze juillet deux mille vingt quatre la lay am mai ak la 6 sulit. kon ni la tëddee kon ku bëgg net nett suba 9h27 bu fekkee Sénégal nga jakkaro lo jant bi bu sa takk ndeer bi dëngé rek xamal djublo djublo jubloo bu djubé kot ci jëm gënaaw nak net yaangi ngi nabi Vision. loolu ñaar yo lay am ci at mi kon mi ngi nonu loolu leen doon fàttali euh, dana ñëwaat ci benen jàngale. ci budul loolu nooy xamee penku danañ ci ñëwaat incha allahu taala ba fu waaye nekk ci réew mi mën a xam penku nga xam fu jant bi nekk nga xam fan la penku nekk danañ ci ñëwaat ba beneen jotaay bu gën a yaatu danañ ñëw tamit bu fekkee da ngaa nekk ci guddi bëgg a xàmmee penku bi ci wàllu bidiw yi bu fekkee du guddi nag bëccëg la nga xam ne bidiw amul gisoo bidiw nga mën a xam nooy natte penku yan weer nga ko mën a natt lol danañ ci ñew suba wala buñ amaatee benen temps inshallah allah nañ ci bayyi xel euh lima ci bëggoon doli nak moy dafa am li ñu tuddee ay palaag moy ñaari palaag yi nga xamné dama ko bindoon te leeru ndax yu bari da nga ko bëgg a wax def ko vidéo mu leer waaye temps bi mu lay fekk mooy gàtt ba bind doo ngay man te li ngay bind lu bari du leer ci nit ndax day aajowoo leeral man lépp lu ma am naa pas-pas bu leeral ko ci vidéo waaye léegi soo gisee ma jege bind dara day fekk booba am ma temps man a wax kon bind rek laa man waaye li ma bind sama paas lépp danaa ko leeral moom incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ak jàmm. Naby Vision. waaye bindoon naa ko ci. dolli ko gi nga xam ne moom la océan Atlantique bi di dolli ko muy al muhitul atlas yi muy géejug ndakaaru bi nga xam ne moo jaar fa bari ci àdduna bi ñu bokkook Amérique ak yenn ci réew yi ma wax ne at mu ne day dolli ko un centimètre ba cinq centimètre loolu li ko indi mooy suuf si dafa am ñaari palaak yu ko yanu bu ne suuf si mooy der yu féete kaw kuusu suuf si li féete kaw nga xam ne ci la réew yëpp nekk juróomi conteneurs yi ñaari palaak ñoo ko yanu di deux bu ci nekk di cent kilomètres nga boole ko muy deux cent kilomètres ci suuf dañoo taxawul benn place dañuy dañuy déplacé déplacé boobu ñuy déplacé nag ci océan Atlantique bi lay dolli ko suuf si at mu ne day yàkkale ko yàkkale ko boobu ci géej gi lay feeñ océan Atlantique bi rek ci lay feeñ mais du feeñ ci yeneen géej kon océan Atlantique dafay yokk ndax ñaari palaag yi nga xam ne ñaari safa safa yi nga xam ne ñoo yanu continent yi mbooleem xaaraat yi ci adduna bi yëpp muy continent yi juróomi continent yi palaag yi ko téye ñaari palaag yooyu bu ne cent kilomètres la nga boole ko muy deux cent kilomètres dafay écarté écarté bi ñu écarté da koy bàyyi ci océan Atlantique bi muy dolliku waaw danañ ko gën a leeral nag ci yeneen jotaay mu gën a gudd euh, yu bare bari ba ci Dakar suñu sowu ñun Sénégal li mu dugg ci ndox mi. Naby Vision. ak ba ngay àgg ca Caraïbes yi Baharul Caraïbes yi boobu danañ ci ñëw moom tamit ci jotaay bu ne yaatu incha allah waaye daal ñu xam ne suuf si at mu ne dafay yàkkaliku ndax ko plaque yi ko yenu dañuy écarté wu mais écarté boobu ñu écarté wu ci géej gi dong lay dolli ko géej gi océan Atlantique mooy dolli ko chaque année. cinq centimètres ma un centimètre ba cinq centimètres nii la tëddee kon géej gi taxawu rek fa taxaw day dolli ko ni nga xamee ne jëmmi suuf si yëpp boo ko boolee ci pôle sud ak pôle nord seen vitesse yi yemuñu maanaam li ñu daw vitesse yi daf at mune day gëna gaawant bu ngeen sétlo juroomi at yi bu tess yiñ ci am ñoom fi ne ren ñu ci parce que 605 km te bu ñëk nekkon ay 300 ay 400 les mi ci 5 mi ngi ci 500 bokk la bëgg wax moy ci juroomi témer km bu tess wi yamut ndax déplacement bobu muy def afala yarawna annana tatadan nanqusha min atrafiha Nabi Vision. nonu nga xam ne suuf si day am côté bo xamne lolou motax sax même météo yi ak ñepp di am problème ci tak jawu ji ci mëna tak taw bi ci mëna tak ngelaw li yoy ñu am problème moy lolou barna bari yu bari yuñ takkon ci xam-xam bu njëkk dafa sensé ndax nature dafa bok ci gëna nakare comprendre surtout nag bokay koy ci walu ay machine ki ci ëpp sax lu mu mooy ki ko jàng xam ko ba noppi di ko dund topp ko bay ba yaramam jaxasoog nature boobu kook moo ci ëpp xam-xam waaye li gën a naqaree consulter mooy nature bi wàllu ngelaw yi wàllu taw yi ak yi caaju mu gën a naqaree consulter waaw consultation bu aju ci wàllu climat bi nii dañ koy dund waaye boo ko tënkee ci ay machine maanaam ay machine nga yebal ci jaww ji wala ci côté yi di mën a xam dëkk bu nga mën leen jox seen tàngoor seen degré tàngoor seen changement climatique mën leen jox ba xam dana tawam du taw dana ngelawam du ngelaw waxtu wu ci ci melo ngay dëkk bu fekkee da nga koo teg ci ay machine Naby Vision yàlla bi mu bindee bi bi mu bëggee doomu aadama bi mu sàkk bi mu bëggee doomu aadama gouverner suuf si dafa bind suuf si ba noppi teg ko bind nit indi ko fi nit moom tamit ni ko yàlla bindee ba mu bëggee nit mën a xam suuf si naturellement saa jumtukaay dafa bind nit ci suuf min xaaxalax naakum mooy dafa tibb ci suuf si pour ma wax lu gën a jege loolu bind ci doomu aadama doomu aadama noonu ko yàlla binde mën naa xam nature bi sans jumtukaay day dem ba yëg ba nature am wu ak yaramam muy mën a xam tàngoor wu yokk ak tàngoor wu wàññiku mën a xam jaww ji mën a xam ngelaw yi mën a xam taw yi mën a xam ba xam dina tawam du taw dana ngelawam du ngelaw loolu du baatin xam-xam ne dañ koy jàng rek waaye kem ni koy jàng nag di ko dund yàgg ci ci ngay demee ba xam-xam bi nga xam ne moo tax nga am ko ci waaye bu dee ndax machine ñu ngi ciy defar nit da koy defar foofu nit da koy wees nit day mën nga am fi toll tollu tey benn point ci xam-xam benn tomb ci xam-xam nga liggéey jumtukaay bu tolloog loola mais jumtukaay mënta yokk mais yow yaay yokk doomu aadama cerveau bi moo yaatu secteur yi ëpp na fukk junniy milliards secteur te ba fi ñu tollu comprendre guñ ci lu weesu juróomi juróomi pepp waxuma ay secteur sax juróomi pep yi nabi vision kon fi nga ya, yow ba defal bo gisee ñuy dem ba yag ñu defar benn jumtukaay dem ba yag ñu yeesu jumtukaay bi indi beneen jumtukaay moy xamé kon jumtukaay du nattukaay waxtu ne ñu koy def dañuy nërmeelu ndax fi nga tollu ba defal benn machine sa xel da koy weesu sa yuur da koy weesu nga defaraat baneen kon ba nga defaron japp ne ma nga cee natte jaww ji foofu sa xam-xam fa tolon mais euleuk sa xam-xam da koy nga am problème tout temps lolu daf may fatali waxi a Cheikh salih Mbacke radiallahu taala an ci ne nit nu may gi toll non la xagn gi tollu mu ne sempet benn ne ba tay sax ma aadama munta defar xaxam ak limu simple simple xoolal xaxam bu la taxee nga din ak non. mu simple non nit mënagu koo defar lu waral lool ndax lépp ci sifru la tàmbalee mooy ci dara te dara boobu mooy li gën a compliqué mooy li gën a naqaree xam bu fekkee doomaadama aadama woon xel mi ko yàlla jox ak expérience bi ne ci yuuram directement sans jumtukaay waxtu wu ne rek day am problème ndax bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw lu du jiitu ñaar fukki ñaar fukki at ak maanaam côté l'an jumtukaay yi ñu ay yor tey ci àdduna amutoon. Naby Vision. bu ñu aneeree lu ko gën a sori 1980 ñi nekkoon ci maanaam ñi nekkoon ci un maanaam un CECA ci gàttal lépp lu ñu doon ko ci àdduna bi ci ci ci wàllu jaww ji machine yi ñu yoroon yëpp un tàmbalee woon ñu dem bàyyi ñu dem quatre vingt ñu ñëw deux mille ñu ñëw ci trois ñu ñëw deux mille dix ñu ñëw ci quatre léegi ñu ngi ci cinq ñu ngi dem ci six léegi ñu ngi ci ñu ngi ci cinq CK ci lépp dañuy dem ci six CK six maanaam G5 six five dañuy dem bàgg ñu àgg ci set loolu doomu aadama ci bopp mu la yu gi rëy ba lépp mën na koo xam mais nag niñ ciy doxee noonu moo ñu indil problème xam nga yàlla waxoon na ne inna lasina tadduxoona min dunillahi lan yaxluqu subaban walaw ijtamaxu la wa in yaslukum subaabu la yasamkisu minu daxafu taaribu wal matluubu Naby Vision bi ñu bi ñu bëggee liggéey courant jële ko ci jant bi sant bii ñu yor lu ñu def boroom xam-xam yépp lot ñuy jàngat nan lañu mën a fexe ba accueillir énergie bi jóge ci jant bi te fañ koy denc du du yàqu te du te du am jafe-jafe ñu am problème fu ñu ko mujj xamee ci weñ bëtu weñ lañu jël jàngat ko gis ne moom li muy accueillir ci courant ci énergie bëtam am na ay secteur ak ay bion yoo xam ne loolu muy tuuti tuuti tuuti li ak accueillir am fu mu koy denc te du yàq bëtam mu ciy jël li mu soxla ak ni mu ko yàlla liggéey ni mu yéemee ñu door a xam nag ne mën nañ cee liggéey saleer saleer boo gis tey ci àdduna xalaat bi ñu li ko trouvé bañ mën koo jëfandikoo ñi ngi ko jëlee ñi ngi ko jëlee ci bëtu weñ kon bi yàlla weñ ni mu ni mu tuut nga koy su naaw noonu tuuti yàlla ma ngi ci doon joxe exemple ci ni mu yéeme nga xam ne ak may gi li mu toll lépp mënta liggéey weñ mënta créer weñ weñ képp. bi Vision. te bi mu demee ba gàtt ci weñ la gàggante ko yàlla nag di ko nuróole ak ñu koy jéem a wutal ndend di jéem wutal yàlla ndend wala moroom yàlla neen ku mënta créer weñ comme ni Sëñ Saaliw waxoon ku mënta créer xaaxaam. xaaxaam bii kenn mënu koo créer yàlla na joxe misaal ci ne ñeen ñi may jéem a wutal moroom ak ndend ak ak bi ma jéem a weddi defar leen weñ te tey adduna bi ñu demee ba gàkk ci xam-xam ndax courant bi ñuy jëfandikoo tey ci àdduna ñàkk xam ko indi waaye àdduna weesu na foofu parce que am na ay lor bu ñu jëfandikoon courant jant bi du am lor moo gën a baax ci environnement bi gën a baax ci nit ñi te kenn mën naa bañ a fay dara wala boog lañuy ñuy fay bu dee fukk la benn la ñuy fay suñu waroon a fukk benn la fay réew yi ci yow nguur néew ñu ngi koy tàmbali di liggéey courant salaire amul benn jafe-jafe bu muy def ci jaww ji du du sens climat bi du yokk tàngoor yi amul benn posen bu muy sànnee ci jaww ji te tey mën nañu koo liggéey mu nekk ñu ko jëfandikoo ci oto yi di ko jëfandikoo ci avion yi di ko jëfandikoo ci welo yi moto yi lépp luy daw di ko jëfandikoo suñu kër yi suñu environnement du yàqu tàngoor yi du yokk kuus yi wër suuf si benn du yàqu mais nag. naa Naby Vision. bëgg laay ak ñàkk xam-xam gu métti gi moo ñëw fii àdduna nekk nii mais àdduna waroon na ko weesu ay seekali seekali seekal ci kanam fii àdduna nekk tey avant 1900 la fa waroon a nekk bu fekkee doomu aadama jëfandikoo na xam-xam boobu ndax liñ fi wax yëpp tey boo ko borom xam-xam yi bindeeg léegi mat na mat na presque daanaka junniy at ak topp. ëpp lu junni at Cheikh Mouhamadul bindoon na ci lu jiitu junniy at ndax moom mi ngi faatu mille quarante huit mille quarante huit la faatu waaw Ibnu Saatir bindoon na ci kañ la faatu mille trois cent et quelque ak ni jiitu ñoom ñooñu lañ bindoon ba léegi rek ci la àdduna nekk te ñoom a lañ ci tollu woon tey li ñuy wax ci wàllu fayrosaat yi wàllu microbaat yi Farabi bi mu koy bind ñëpp dañoo woon kii sindiq la tey àdduna bi ci lañ toll mooy ki njëkk feeñal loolu. Naby Vision. kon nga gisee tey fi toll tey xam bi nekkoon na fi ndaka jekk nit ñi xamoon nañ ko ndaka jekk lu jiitu ay junniy ba tey ci lañ toll nañ nii pour wane leen motax biñu bëggee jëfëndiko courant bi nga xamne mom la jant bi di sanni nga xamne buñu xayma soosu liñu consommer ci courant sax at li jant bi di sanni mat nako ko fukki yoon kon ñu ñi ñu yàq lu bari lo xam buñu ko jëfëndiko jant bi bu ko yalla bind pour nit ñi la ba yent yalla Muhammad di taxaw ca makka di wax ne buñ ko joxe jant bi ci loxo joram wéru ci loxo càmmooñam du tax mu bayyi limi wax du tangor wi de li tax yalla bind ko xëkkam bim ci def xam-xam bi te bu fekkoon ne benn réew moo moom jant bi kon nit ñi danañ sonn ci fay facture lool mais yàlla ko def ñëpp bokk waaye li ci nekk ci njariñ moom lay moom la moom lay moom la doon jàngale ndax njariñ lu la mën a jox nag ñu jox la jant bi moo gën njariñ lu la mën a jox la weeri moo gën ndax weer moo yor doxinu suuf si. Naby Vision. ci lu bari ci changement climatique yeeg yëpp ci géej yi ci ni régler nit ñi. régler géej regle régler mu am ay période jamono sedd jamono tangor jamono noor jamono new bu ton wéru lol do am leppay jaxaso kon njariñ ni ci nek tay ku nek suuf di dund am jamm rek wér wi la yalla defal la mu tim la na kon géej yi am fu ñuy wala ndox dootu am wala tay do mën tabax dara ci kaw suuf bu ton leppay funu kon ñariñ yoyu la yenn saa salam doon doon xelmati gelmati xamal ne ne ko joxe jant beeg weer wi tay weer yi mooy cere ya taw manam jant bi mom moy toggu minute seconde bu nek 15 millions tonnes ci ndox diko ko ci garab yi ak ci géej buharul mayi bu ko jëlee ngelaw li door nabivision pour Sun borom def poussière moy def suuf si mu am poussière poussière bobu meuna mën jant bi ko ngelaw yob poussière bobu dajé tangoru jant bi mu composé wu nek ndox ndax jant bi seconde bu nek 15 millions tonnes lay togg ci ndox at mu nek 500 trillion ton te ben trillion moy milliard ton junni milliard ton ci ndox lolou mi ngi koy jëlé ci géej yi diko jele cegara ci garab yi diko jele jëlee ci yépp poussière bi dooru juk mom tamit yoy moy composé wu tangoro jant bi togg ko mu meuna nek ndox yal ngelaw li meuna ñew pous ñu daje ñu dóorante ndox meuna am sunu borom fa fala xam moy mu bes ndox mi mu wacc asaman si jégué suuf ba nga xamné limi taw du yak dara manam du ray kenn ndox yi ya lay mën dal du tang bu upp du sedd bu upp moo tax ba fi ne comprendre guñ sax qul a'uuzu bi rabbil falaq lan moy falaq in uridu ila islah ma satatu ma tawfiqi main ngi nuyu ñepp di ñaanal ñepp jam ak tawfiq Naby Vision. Euh, fii ak nañ fi mu jotee jotaay bi ñu dellu rek di yeesal sunu taalibe ak sunu cofeel ci Mawlaana Abdullahi wa Xaadimi Rasuulihi Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul in uriidu illal islaah mastata wa maa tawfiiqi bi billaah wa alayhi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.